bon def nañu yaakaar def nañ aussi kakatar donc kakatar wax naa ci sànq def nañ aussi baisse pas les bras pour gën a ñaaxaar jeunesse bi def nañ aussi nobel parce que réew mi moom nobel gi moom dafa bokk ci tendance bi def nañ ko aussi. parce que amay teg ci réew mooy man ak samay morom dafa bokk loo xam ne dañ koy changé et on voit que nos aujourd'hui dafa xaw doy waar emploi des jeunes dañ koy wax chaque jour chaque jour chaque jour et que problème am mi ba tey donc loo xam la priorité la ñu war ci ñaax ndaw ñi moo tax aussi ma wax ci suñu sama album mu doon loolu xam ne yaakaar te vraiment suñu yaakaar dafa tas aussi.